am Gabon maintenant nak pour terminer par li nga xamné mom la ñëpp di tit moy vraiment la situation de Ousmane Sonko mais bala may àddu ci lolu damay wax ni euh, bërki démb dem naa seeti ñaari soxna Ousmane Sonko yi donc dem naa kër Ousmane Sonko dem naa seeti leen pour marsawu ñu dalal ma wax deug yalla dalal bu rafet euh, jox ma sama wàccuwaay euh, ma gërëm leen sant leen ndaxte c'était la première fois ma dem kër Ousmane Sonko malheureusement fekkuma ko fa moom ndaxte mi ngi ci xat-xat waaye nag dama demoon ca kër ga pour dalal waa kër gi dalal seen xel ba noppi dëfal leen parce que li ñuy dund metti na bi ma demee nag fekk naa fa ay soxna yu nu yar ay soxna yoo xam ni ñu respecté seen bopp lañ ay soxna lañ yoo xam ni. ñu gëm yàlla lañ parce que li ñuy dund metti gi muy metti yépp boo yeggee yow mi ñëw di leen dalal ñoom sax ñoo lay dalal te loolu jàngat naa ko fa muy loo xam ne lu ma marqué la parce que ku ci nekk wax na ak man ma toog ñu wax ma dégg ma wax ñu dégg wax dëgg yàlla ma gis ni ñii kët ñu nu waajal lañ lii Ousmane seen borom kër di dund metti na lool ndaxte boo xoolee di nga xam ni ñii ñi gis souffrir souffrance moom mi ngi ci ñoom mais souffrance boobu taxul ñu saalit man gis naa ne ñuy dund lu metti lañ bi ma demee seeti leen mais gis naa ne soxna Ousmane Sonko yii ma gis man ñi ngi dund lu méttee méttee metti mais ñoo dal lañ dal nañ ba noppi ñi ngi koy dund avec philosophie ñi ngi koy dund ak vraiment euh, gëm euh, yaakaar yaakaar yàlla subhaanahu wa taala andi ci ay saafara parce que amul kenn koo xam ci àdduna da nga fiy jaay doole sa sa morom di konne di ko jaay doole ba ba fa muy mujj rek dangay mujj rek euh, euh, yàlla yàlla subhaanahu wa taala àtte te ñoom gëm nañ loolu gëm nañ ni ba fa muy mujj yàlla subhaanahu wa taala àtte parce que li leen di teg jaaduwul dañ leen a tëj ay weer wala dañ leen a tëj lu mat ñaari weer pare jël seen borom kër jaay ko doole dem tëj ko ci kaso bi ci condition yii mu nekk nii mu nekk ci xiif boo xam ni tey wér-gi-yaramam euh, wàññeeku na bu méttee méttee métti ba aujourd'hui ñëpp ngi tiit parce que yéen ñëpp dégg ngeen les avocats euh, bu Ousmane Sonko wala ki coordonné avocat Ousmane Sonko yi li mu wax muy maître euh, Ciré Clédor Ly fu toogee ab diir day leeral sénégalais yi leeral autorité sénégalaise te gis ngeen yéen ñëpp li mu bind wax na nag ak le président de la république wax na ak autorité yi maanaam kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo téye Ousmane Sonko ci kaso bi wax na ak ñoom nee na leen Ousmane Sonko wér gi yaramam fi mu toll mi ngi ci mi ngi ci phase boo xam ne loo ne mën na am maintenant parce que daan na wax ne Ousmane sonn na mais tey dafa romb sonn Ousmane Sonko actuellement li muy dund fi mu toll nii ku tiitul da xamul fi mu toll kon nag nee na leen bàyyi leen Ousmane sonk mu ñibbi balaa musiba am bu Ousmane Sonko. Euh, li muy dundee àggee fi ñépp di tiit té kenn bu ko tudd suñ fa àggee musiba mun na am Sénégal te boba koné ne mën lor kon encore une fois l'or maître Ciré Clédor li wax nga xam mom moy dugg fofu au nom des avocats de seet Ousmane Sonko di génnaat wax ak avocat bu ah, wax ak médecin bu Ousmane Sonko dem gis Ousmane Sonko fi mu teud nga xam ni fi mu toll nii ma ngay laati kaas amatul benn kàttan Ousmane Sonko léegi benn kàttan amatu ko fi mu toll nii sonn na ah léegi nag kooku man jàpp naa ne nag jot na président de la république mu joxe mu joxe ay instructions pour que ñu bàyyi ko mu ñibbi këram parce que Ousmane def lu tax ñu war koo teg coono bi Ousmane def fi lu tax ñu war a seetaan ba ba ba musiba mbaa ba kuma nar a nar a nar a am fii ci Sénégal. parce que bakkanu doomu aadama dafa foor surtout bakkanu koo xam ne dafa taxaw pour réewam deful lenn lu ñuy tere bëgg a jiite di politique politique politique comme ni ma ko soxnaam yi waxee politique jarul lii lii lan la lan moo fi jar lan moo fi jar lii encore une fois nañ bàyyi doomu jàmbur ji mu ñibbi lii dafa ëpp Ousmane Sonko mi ngi ci dund ak la toll na sénégalais yëpp xam parce que lu mën a am aussi dañ leen di wax dëgg gi Ousmane sonk actuellement sonn na xàmmeetul kenn l'heure est grave bu ñu bàyyi situwation bi mu dem parce que bu ma gisee ñenn ñi surtout ñenn ñi nga xam ñoo bokk ci nguur gi ñu taxaw di kontaan ci li nga xam moom la Ousmane Sonko di dund man damay jàpp ne duñu ay nit ñi nga xam ne da ngeen kontaan ci li Ousmane sonk di dund nii yéen du ngeen ay nit. nit du yéene moroomu doomu aadamaam du ko yéene leen di nit du yéene moroomu doomu aadamaam mu dee te yéen ñiy kontaan ci lii Ousmane Sonko di dund du ngeen ay nit te nguur day jeex bala moo yàgg yéen ñii di jiite yen ñëpp fee ngeen di toogee ana ñi doon jiite ci jamono yi ci jamono yi Senghor ñu ci bari génn àdduna wala bu ñu génn àdduna mënatuñ dara ana ñi doon jiite ci ànd ak président Abdou Diouf ñu bari ci ñoom génn nañ àdduna wala ñi fi des daanaka mënatuñ mënatuñ dara ana ñuy àndoon ak Ablaye Wade di jiite réew mi ñu bëri ci ñoom actuellement dem nañ transhumé ca Macky sàll ñu bëri ci ñoom ñaam transhumé wuñ boo leen gisee danga nga leen di yéene sarax donc yéen ñii tamit tey nga xam ne yéen a jiite nguur gi yàggatul léegi ngeen taxaw ci mbedd yi ñu leen di joxoñ daal ñii ñoo doon jiite réew mi di jaay doole ñii ñoo doon jiite réew mi di yéene nit ñi ñu ñu euh, ñu ñu ñu nekk ci jafe ñii ñoo doon jiite réew mi di di fi def ay njombe kon dara jaru ko fi wut leen jàmm yéene leen nit ñi jàmm Ousmane Sonko doomu senegal la Ousmane Sonko ci réew mi la jànge ci réew mi la doon liggéey ñu jaay ko fi doole dàq ko mu taxaw ànd ak sénégalais yi yiir ko ta tatagal ko bëgg koo dénk seenum réew am nañ ci droit loolu kese la la ngeen ko mën a taqal mooy daa taxaw dëggal boppam wane discours bu bees boo xam ne sénégalais gis nañ seen bopp bëgg koo dénk seen réew mais lan moo fi jar lii di bund xataal doomu jàmbur di ko jaay doole ba tey jii ñépp tiit mu nar cee ñàkk bakkanam lan moo ko fi jar su bakkan rote lu ne mën naa xew ci réew mi ngir yàlla encore une fois bu ñu àgg foofu parce que politique jarul loolu nañu bàyyi Ousmane sonk mu ñibbi këram encore une fois na ñu bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram parce que loolu mooy indi jàmm ci Sénégal Ousmane sonn na Ousmane mënatul dara fa mu tëdd fi mu toll nii ñépp tiit ay soxnam tit nañ ay jegeñaaleem ci politique tit nañ ñi nek bitim rew tit nañ ñi nek ci euh, politique bi te yenen jamm yépp tit nañ képp ko xamni bëgg nga rew mi tit nga même les étrangers dañuy dañuy dañuy wax ci kaw Ousmane Sonko actuellement di am titangé kon lan moko ko fi jar lan moko fi jar politique du noonoonte fii kenn du fi ay noon ñun ñépp ñoo bokk réew mi kon nag nañ wut jàmm wut jàmm mooy bu réew mi tollee fii ki nga xam ne moom lañ dénk suñu baat ñun le président de la république Macky Sall yow lu mën a xew ëllëg yow la ñuy wax ne ci sa nguur la ame ñi lay jañse ci président Ousmane sonk yépp man jë gëm naa ne yéenewun la jàmm ñun leen lay ñaanal mooy nga génn ci nguur gi ci jàmm nga dem ba 2 avril 2024 nga joxe nguur gi ci jàmm bu ko defee sénégalais di fàttaliku yi nga fi def def nga fi lu baax def nga fi lu bon noonu la ñëpp loolu moo am ci réew yëpp mais nag nga taxaw fii ba yenn yi am fi ci sa nguur bu ëllëgee ñu la koy fàttali loolu baaxul te comme ni ma koy waxee ku fi nekk président de la république booy dem doo yóbbaale sa njaboot gi mën ngaa yóbbaale sa sa soxna ak say doom mën ngaa yóbbaale sa directeur de cabinet ñi la jege. mais mënoo buub sa mbokk yépp yi nga am Sénégal yóbbaale leen ndaxte ñun suñu mbokk daay day yaatu mënoo yóbbaale ñëpp ñi nga xam say mbokk lañ wala say jege ñaaleel lañ te ñooñ dañoo nekk fii ci réew mi kon nag olof yi dañ ne saan wuy dem di dikk xooxu si dem doy na ca jaay doole bi jaru ko président Macky Sall te Ousmane Sonko du sa sa rakk la man li ma gëm mooy waxtaan ak Ousmane Sonko moo gën ci yow Ousmane Sonko du def benn par parloo bis bu jëlee réew Ousmane Sonko du jaay doole Ousmane Sonko du fayonte lolu ku xam Ousmane Sonko xam du genre kon Ousmane Sonko mi nga tok waxtaan ak mom bayiko ko mu ñibbi àggale fajom dem tok ak ay ñaalem ak njabotam faju ba wër ngeen tok waxtaan yeen ñaar wala ngeen def ko par personne interposée ñu dem ay élection yu libre et transparente en 2024 ñepp ñi ci wara bok bok ci bu fekkente ne dafa daf la wara a mu wutu la mais nga taxaw ni Ousmane Sonko duma wutu ak luma ma def dina ko def ba duma wutu man japp na ne loolu loolu du sa cieur yow president de la république parce que yow ñëpp yaay sen president de la république ñi and ak yow ak ñi andul ak yow kon Ousmane Sonko du sa non bayil Ousmane Sonko mu ñibi kërëm Macky Sall li moy deug kep ko la wax li mo la yene jamm parce que jaay doole ku ko def ba famuy mujj doo am dab parce que jaay doole baaxul parce que doole yàlla subhanahu wa taala rek moo am kon jàpp naa ne yow jot na pour nga bàyyi doomu jàmbur ci mu ñibbi mu ñibbi këram faju mu ñibbi këram dellu ci njabootam bu ñu paree nag nit ñi toog waxtaan yow nekkatoo nek nekkatoo candidat en 2024 ñi bëgg a nekk candidat yëpp bàyyi leen ñu nekk candidat sénégalais yi tànn kin bëgg a buñ ko tànnee ñoom lu fa mën am bu ëllëgee yow nga ne man organiser naa na ay élection yi leer dem naa sama yoon bu ko defee jàmm ne ñooy lii mooy vraiment conseil bu baax bi dellul ginnaaw ñi lay wax ne la Ousmane sonk bu la wuutoo lii dina am lee dina am lee dina am ñooñu ñëpp seen seen poos a tax ñuy wax ñooñu ñëpp ay tappalekat lañ ñooñu ñëpp euh, dunguru muy dox bi lañ bokk dañuy dunguru muy dox ci dunguru muy dox bi lañ bokk kon nag yow réew mi yaa ko jiite te bu yàqoo ëllëg dañ la ciy tudd bu baaxee ëllëg dañ la ciy tudd kon li ma lay digal ci jàmm ak ci njekk mooy nga bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram eggal a fajom bu ñu paree ñu toog waxtaan ñu organiser élection yu leer ku Sénégal yi bëgg a dénk réew mi ñu dénk la ko kon lii laa amoon lu may indi tey di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam